waa ñëw. ah loolu nag <laughs> yónnee woo ceeb yónnee woo maanaam sa dëkku goro ñuy inauguré jumaa ji teewoo fa moom mu <laughs> yàggee goro yi mën nañ laa mën nañ laa xaw a sikk Saa Wolof maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi lay fay signalé di nuyu Abdoulaye Ndiaye hmm, di nuyu ñi ñu seetaan di tuub di ñaan borom bi yaatal suñuy dënd leeral suñuy làmmiñ fecc làmmiñ leeral xel yi fecc làmmiñ yi ba lu fi wax mu amal askan wi njariñ hmm. su ma xamoon ñëwaa ah, wala ma yónnee mais nag yow eh, man fi ma nekk ci Ndar la yow fu nga nekkoon ci maatam la. Fuuta la ah, waaw mais Fuuta <laughs> maa ngi nekk région de Saint-Louis. <laughs> la nga nekk région de Matam. non Fuuta la non fu kii moo am léegi xam nga li mel ni nga naan Casamance Sédhiou naan Sédhiou. boo demee boo laaj ko soxna si. ah non xam naa man ngay wax Fuuta man ma xam Fuuta ca Tekruur ba ni mu tuddee Fuuta xam lu tax mu tudd Fuuta. ak kañ la tudd Fuuta nga bëgg maa wax naan. Fuuta <laughs> yaa ngi wut lay rek. al Fuuti yu taal. mu ngi noonu euh, ñu ngi nekkoon ci tomb boo xam ne mu ngi teel jéegi Diop bu APR ak euh, convocation tayam bile ñu bari gis ne quand même c'est politisé xaw ma nguur gi moo koy politiser xaw ma moom dans tous les ci déclaration bi c'est euh, purement politique parce que mu ngi wax naan kenn du ma xoqatal kenn du ma jaay doole maanaam ba tey waxul. ci réellement lan moo xewoon ca biir moom daal li mu wax mooy dossier bi mu ngi topp aw yoonam mais ci ay xibaar dañoo xamal nañu la mu doon bañ lay nangu maanaam passation de service bi mu doon bañ nangu na ko ci biir te dina ko defe ji ban jàngat ngay def ci dossier boobu. passation de service euh, loo xam ne ci république parce que dafa am ku lay koy ku lay wuutu. Mhm. ñaari kaye yooyu ngeen joxante. waaw bii fii la nekk def nañ ko fii fii lañ toll soo soxlaa li nangam nangam su ngeen noppee sax da ngay jël benn wala bu doonoon ay exemplaire en tout cas da nga yor kilo la yor nga xam ne bu kooku demoon am loo xam ne lënt na ko mu woo la parce que administration noonu lay demee léegi bu nit taxawee lànk koo def mais kooku jalgati na loolu ça rime pas avec républicain beneen bi mooy dañ ko politiser ku ko politiser ah dégg procureur woote wala ngaa dégg gendarmerie wax wala ngaa dégg kenn wax ci moom moo wax hmm. moo tëgg moo tal mbaj moo tulli lu xew dara xewul naa yàkkamti nañ ñu politiser nangam ak nangam am problème loolu mën nañ cee yegg mais li war a xam mooy nit ñi dañuy nangu ne lii la républicain nangu lii la tradition républicain nangu dafa am foo doon xëy ñu jël xaalis Sénégal di la fay am ñoo xam ne dañ la wuutu minimum vie durée que nga toog joxante ay lenge ak noonu bu loolu amutin nga def ko di manière boo xam ne mën na bañ a fés comme nii comme noonu mais du tee nga nekk di disponibilité fa nga xam ne tey fa nga doon nekk mais génn di gaawante di politiser benn affaire wala wala dafa am leneen looy nëbb ah xam nga tey mën naa am dossier bu doy waar man saa wolof ma xam ne bu ma génnee baj baj doomu commissaire bi coow la may topp loolu rek laa ko gise te buñ bu ma bàyyee coow loolu topp ma leneen coow lu gën a mag topp ma ñuy lijjanti mën naa doon loolu wax ma ne loolu la bu politisation day am rek moom moo ko politiser affaire yi jarut di di di tëgg fii ak wala di dem fenn di woo say géwal ñu ànd ak yow di la jiin ah loolu kay man <laughs> mais yow tamit nag Alioune nag euh, hmm? présentateur nga mais nag. da ko mbir mi ni ko doon yokk fit wala. Ah, mais déedéet mais nañ ko ko tuddee rek. waxuñ fi keneen amul ñeneen ñu fi dem lan teeg yoon da ngaa dégg ñu def lii ñu def ah tey de laa ko mas a gis. <laughs> mais mais Ablaye loolu dama la ko fàtte laaj quand xam nga dem gendarmerie yóbbaale sa géwél mu lay tagg. ak i mel noonu du ko def yàlla tere ma. te est-ce que géwél bi topp ko. <laughs> <laughs> bi daal mu ngi fii waaye dama koo seetaan tey. ay ree dama jàpp. non géwél bi mën na koo topp de. pourtant géwél ku fidèle la nag. fa la toog ñëpp dem na moom rek moo fa des saa saa yow historien nga xam nga ni géwél yi dañoo yàgg fidèle. mais dañoo yàgg fidèle taxaw sori police ba ne fee mu taxaw. du ko jege nga dem ba biir gër mi la. doo waay ban gàll bi doo dem ba bi taxaw ci bunt bi mais. bu nekk sañ na ko. Eh, eh, eh. a reetaan rek. waaye kee taxaw daa sori. kat fee naa ko. ndax am na ñoo xam ne fii bañ leen jàpp yow bi ñuy ja kii dum euh, kii dum tadi door door a géy bi ñu koy yóbbu gis nga géwalam day door rek door a géy gis nga géwalam day door rek kii fay nu mu tadi daaw da fay ah. bañ ko fi jàppee gis nga géwalam bii géwél moom géwél bu ñu war a décorer la jiggi da ko war a décorer ndax moom lu metti metti ah, daana topp gi <laughs> amul benn problème ko mais nag jé moom kii géwél bu pat géwél bu patriote la ab déclaration moom euh, sànq moom ku ko déglu xam ne dafa politique moom moo politiser affaire yi nag waaw ne ma ne la eh, eh, eh, communication politique la déclaration moom la moo tax waxuñu li xew ci biir ne ah man kat nangu naa passation de service lañ ma doon wax dama koy defe ji lii la sama dossier wax mais avocat moo ñu xamal nañu jéegi nangu na dina dem def ji passation de service. mais ah, loolu amul amul man moom bu fekkonte ne waxtaan nañ dama naan ko jéegi. du pare war a def passation de service man gëw ma président Macky Sall dafa amnistier toutes les émeutes mais kenn ku ne la nga yoroon état bi amuñu lu ñuy amnistier man dama ne fi yoroon suñuy action euh, dañ laa bàyyi. ci suñu biir parti am ay cadres nommé keneen nommé la. bu passation de service jotee demal nga defee ji passation de service. sans. sans sans mu am bruit Abba Mbaye dafa démissionné mais ke ba léegi kenn déggul coow bu defee passation de service gisuma ko def na wala deful mais gisuma ko mais man dama ne ñoom ñi nga xam ne dañoo toogoon am 2000 cadres ci biir APR. ñu bàyyi seen i morom jox leen ay postes de responsabilité bu ñu demee ba jeexal ñoom ñi ñu joxoon ay postes de responsabilité kenn ku ne na nga dem defi ci sa passation de service na mu gën def mais lii géwalam bi def man dama ko rafetlu euh, ñàkk def passation de service gi nag bu fekkee loolu rek lañ ko doon ndax ñoom bind nañ ko jox nañ ko UG. envoyé ko ne ko nañoo def passation service bu dee républicain la dëgg woo loon opposé wu dafa dem defe ji passation service mais man dama dul nangu ndigalu président Macky Sall dama ne keneen nii ma jàkkaarloog saa wolof laa jàkkaarloog président Macky Sall dafa wax lu leer bërigéem bi problème amee ci assemblée nationale dafa woo ay député ne leen doxalee nii réew mi nekk leen ay républicain dafa wax ba mu leer tey lu fi waaye def lu nag sul noonu kenn du ko teg ci compte président Macky Sall parce que man waxuma dafa yóbbante wax ma dafa keneen damaa jàkkaarloog moom mu ne nekk leen ay républicain yàllaa dogal ñii di gouverner des leen à l'opposition ku ko nangu téyewuma fi kenn ku bëgg a dem tragémé ji demal tragémé ji ku sa ngor may nga des desal mais bu buñ defee lu baax accepté leen ko suñ defee lu bon man wax naa ne chaque jour lan laay bañ mooy kenn épinglé guñu sàcc guñ dara nit ñëw dañu traité ay sàcc te wóorugul ne dañoo sàcc bañ àtte ba mu woo ne jël nañ ñu bañ indi débat bu sal ci ci ci ci plateau yi teg loo xam ne sénégalais dañ ciy amal njariñ nan la ñuy fexe ba emploi des jeunes am nan la ñuy fexe bay mbay mi ñor nan la ñuy fexe ba xale yi di dem ci gaal yi ñu mën a des ci réew mi d'accord xam leen nag comme ni nga ko waxee mooy daf ko war a def non seulement defu ko mais créé na bruit woo nañ la nga wax ne nii maa ngi dem woo Nations Unies ak banque mondiale xaw ma noo ñoo wooti ba pare fii la mujj te liñ la doon laaj mais léegi moom mooy kan kan la yàpp quoi lan lan moo taxoon lii yëpp ah bruit bi yëpp lii xam nga nag seq na kook ñoo xam ne gis nga. <laughs> ay maanaam ni mu déedéet. wallaay daf ko jaroon rek. li muy jaay. kilo hmm. liibar la ci gaa yi yor. dañ ko yor ba mu doy sëkk toog yaru gis nga lu doon mën a def fiñ ne degg la ñu daan dégg. laisse les moutons moutons pisser tabaski viendra. Hmm. la cay topp doog cee topp. waaye kaay wuy si kaay def passation de dafa jar lii tentamar bi fi nekk yëpp. coow liñ doon wax ak ku nekk di tiit ay mbokkam bu wóor ware wala daagam ak daagam coow jaru ko woon. xam naa désolé. chef de parti la bëgg na ko kuku maa ngi liggéey maa ngi kii xam naa loolu la am na ku koy wax quand même am na ku ne. Euh, dafa bëgg gis nga gars yi yi dëgg moom ba gars yi milité PDS di def li ñuy def bi mu méttee daa daw tey nii lay dawaatee. Hmm? leer laa leen wax kii rek laa xam jéegi. ndaw si rek laa xam. bàyyil waa P ca Kumba Gaye ak Baara Gaye dama lay wax rek ca Kumba laa xam. ku jógee APRS dem APR. déedéet non non non non c'est pas la même APR bari nañu ko nekk ñoo xam ne yow yow yow gëmuñ dara. fii ku fi falu ay nit ñëw teg xanaa nga taxaw ne bëgguma transhumant tëj say bunt. te ànd ak loolu sax ñu ngi yor marto di fëgg. di am na ñoo xam ne ñu ngi yor marto di fëgg naan damay dugg par force. ngir yàlla tëj leen ko non non tëj dañoo weesu li ñuy def bu leen tëj de bu leen tëj dañoo weesu li liñ tëj dañ koo weesu ñun bëgguñ ko ñàkk jom gis nga loolu bu dee ñun rek président Macky bëgg dem demal dama loolu bu dee ñun la ah. rek na seen gémmiñ kii mm. am na ñu yor sémmiñ di fëgg eh, xam nga eh. Abdou Bara Dolly sémmiñ la yor di fëgg ba léegi kenn faalewu lu ne créé na ko Touba ak boy voilà <laughs> mu noonu hmm, beneen euh, polémique bi nga xam ne euh, mu ngi fi juddu semaine bi passé waaye dafay gën a rëy laajoo ma ci maa ngi dégg sa waay wax. <laughs> waa ci ñomatum garab gi ñoom moom nag jàpp nee na comme ni ko waa benn bokk yaakaar waxee fële ah donc euh, du priorité parce que moment bi ci màggal la ñu jëm te euh, askan bu bari ñu ngay tëmb ci ndox ma donc ñoom nee président ñëw fa nag di jëmbat ay garab vraiment euh, ak mukkiri la ñoom. dégg naa ko mu naan na dem Ndiaga ñaaw ga mu dëkk. <laughs> président Sénégal fépp la dëkk. bàyyil sa ni ngay opposé waaw léegi de président nag président. voilà dafay def benn lancement boo xam ne rotation lay def. day ah, wër day wër quoi beneen bi mooy li ci symbolique mooy. Touba ca kanam tey fi ñu yegg si nii Touba ca kanam dafa mën a jafe-jafe yow bu dee miin nga Touba xamoon nga ci dara. le temps avant ñuy taxaw ku ne xeex na leen. am na tey ñu fes ci euh, jotaay bi foofu. bokkoon nañ ci ñiy xeex. Ah, Touba ca kanam waaw. Ah. ca jamonoy sëñ Sidi Mokhtar. Mhm. Mhm. amoon na ñu doon xeex Touba ca kanam waaye sëñ euh, Abibu nit ku baax Mbàkke Bàlla hmm. dëgër bopp rek way deng ci lim nekk lu baax la ba xëy tey am résultat comme ñu doon jéem a kiiwee rax ma ak maa la wax loolu euh. mais mais mais mais mais Touba ca kanam raw parce que Touba ca kanam xam nga dafa am benn méthode bu mu indi même les gouvernants am na ci ñoo xam ne sax même bu dul sénégalais sax am na noo ci war a jàngee Touba ca kanam andi na Tiwaawan seen kii boobu ñuy def mais Abdoulaye Ka mi demoon ci cérémonie bi Touba ca kanam doon def ay leeral ay làmp ci benn route mu déconné ci. waaw moom kay li doon dama ne. ci kanam am nañu sant Mbàkke ñu doon xeex Touba ci ah, kanam. Touba moom la fa nekk. <laughs> bu fekkee nag. boobu mi sax yow mi sax boo taxawaloon. man boo leen man safuma. xam naa ah, non. <laughs> comme mooy wax rek Abdou Lahad koy tudd. doo tudd ñëpp ne tey jii moom. doo tudd sant Mbàkke te rek doon dama ne neex dem daje Touba ci kanam. waaw dama ne mais ba xeex bu métti ci la woon. léegi boo koy wax doo ko wax doo ko wax mu yegg waaye doo ñu may xam nga bàyyil ma ma wax xam nga ànd loolu yëpp sëñ bi way deng ci lim nekk sëñ Abibu Mbàkke Bàll teg méthode boo xam ne laaj lis xam di ko des laaj lis man di ko def fees xam di defar ay centre de santé yow entrepreneur. non gis naa ko kay. foo gisee foo xam ne bu ko tabaxoon bu état taxawoon léegi ñu ne trois cent milliards trois cent millions. wala 400. ak ay kër yoo xam da koy ñu naan la ay 45 millions ay nang di taxawu nit ñi. ak ay logement aussi nit ñi nag ñoo ko fa def. Ah. mais hmm. loolu moo lay xamal ne ci Touba ca kanam ci ngay natte ne sénégalais bonut sénégalais ku bëgg lu baax la. te nit ñi tamit def élan de solidarité man mi bokkoon naa ci ñi doon dagg ticket yi am na benn naar boo xam ne lu 100 pour cent sénégalais boo ma saana dem kooku xam nga lu muy dagg 10 lay dagg. yu 1000 francs par par yu 1000 francs 10 lay dagg minimum. wala yenn saa yi cinq bu nawee ba ndawe mhm. amet suweer maa ngi koy ziar bu baax a baax man ak fàllu ñoo fa daan ànd loolu dem ba doon modèle boo xam ne ñëpp kii ko Ousmane Sonko état opposant daan ko souligner nekk maire souligner waat ko modèle Touba ca kanam xaw na cee sax bénéficier tuuti ci maire Ziguinchor ñu xaw a def la même chose par après liy xew-xew mais mu nekk étant premier ministre gisaat liggéey bi surtout xam nga tubaa ca kanam avant muy kii naatal tubaa après lañ leen ko jox parce que résultat yi ñuy def cëlale ci lañ gis ne ñoom ñoo ko man loolu mooy liggéey bu rafet ñu jox leen naatal Touba ñu ko tàmbali di ko def modèle boobu bu amee euh, journée l'environnement am journée de l'art bu am grande muraille verte am fi ay la yooyu depuis Macky la ñëw fi ak naga ni à partir reñu Benoît Sambou ci la ci ministère de la jeunesse gëj def campagne di ci yëngatu parce que muraille grande muraille verte Dakar la woon ba Djibouti mën nañu sax Abdoulaye Abdoulaye moo doon l'initiateur maanaam moo ci gënoon a taxaw yeneen chef d'État yi fekk ko feneen ñu ngi avancé de mais Sénégal moo avancé wut surtout ministère de la jeunesse yi Macky Sall amoon foofu moom surtout Mame Mbaye Niang moo ci gën a tappale kat bon waa moom wax dëgg yàlla am loo mën a wax daan nga ko gis mu nekk ci àll bi comme ni ko kii di waxee ànd ak gone yi mm-hmm. mais après loolu dafa dee mais bi ñu yegsee ba tey Ousmane ne euh, modèle Touba ca kanam ba wan ko président ñu ne kon fa la ñuy lancer affaire bi dañu fa dem pour Sénégal yëpp xam ne te Touba bi fi bi ñuy defaree autoroute à yaa ngi fàttaliku bi fi Abdoulaye demee ci sañ mun Mountakha di ko wax naan ko diggante bi am na sax ñu doon wax naan lu tax bi nga fi nekkee defoo ko wala nangama mais booba bu ci Macky Sall téye woon tey appee ci ñu def ko tey mango yi wala lañ fa ji woon tey mën naa am ñu ngi toll ci di meññi lu baax boo koy def jarut xaar ba tey Ousmane gis li Touba ci kanam def ci naatal Touba mu ne leen nañ ko copier président dem fa di lancé mbir mi gis ni nga xam ne tey noonu la ci gaa yi def loolu comme cérémonie la bu ñuy def benn garab ci bis bi bu ñu yeggee liggéey ba fa lay continuer doore Sénégal euh, Touba am na population boo xam ne war nañ ci mën a taxaw gaa yi sax ñu ngi naan ak Baye Fall léegi tey tuubaa nekk foore classée mais waaw danañ ko garab koy boobu voilà te bu fekkee fu mel ni daal raxmaan nga xam ne ñun ku ko xam-xam ne sëñ Abdoulahi borom dër borom jër doon rox ku loo xam ga wax ñu garab mhm. moo tax liggéey boobu nga xam ne moom la sëñ Abibu di initier di ko def doo doonoon wóolare sëñ Seex Mbàkke daal raxmaan ñoom ñaar ku leen xam-xam leen ciy garab moo tax buñ duggee ci naatal Touba Touba dina gën a naat incha allah mhm. loolu nag geste symbolique la Touba goo xam ne boo ko tiimoon du am garab taw yi sax mënu fa woon noonu at yee daanaka ndax ñàkk garab loolu tàngoor wi tuubaa ni muy tàngee ëpp na te njariñu garab bokk na ci loolu. wàññi tàngaay bi wàññi tàngaay kon loolu bu ñu koy def après Sénégal ñeneen ñu roy ko ñu ne ci tuubaa lañ ko royee ab sag la. Mhm. loolu dafa am solo moo tax li fa président dem def loolu rek la muy wane na ñii lii ñuy def lu am solo la lu ñu war a importer feneen lu war a naat la. bu Sénégal naatee rawatina garab gi ñu bàyyale mbir mi muy mango di ku baax. Mhm. est-ce que xam nga sëñ Aliou. waaw ah. nga mën a dagg benn bi saf la ananas. am na mango bu lay saf pom am na màngo bu lay saf papaaya maanaam yàlla fruit boobu mu ñu yàlla jox man mooy sama meilleur fruit man yàllaa dogal liy ñoree senegal laa gën a bëgg mooy mango xaal papaaya yii laa gën a bëgg te dafiy ñore mais mango moo la mën a jox variété yu bari te boo koy transformé boo yeggoon Europe ci yenn dëkk yi wala dëkk yi naar yi ñu lay jaay màngo maanaam kilo bi am na ci yoo xam ne day ëpp 4 kilo 4 euro nangam loolu xaalis la. te naqar naqare wuta ñoral su baree puut gi ñu tànn yi nga xam ne tey lii la yiñ mën a importe ñu importer ko yi tàmbalee fuus ñu def ko nu mu tuddee parfum de chambre. transformé ko. Hmm. Sénégal jëm kanam. daar kase ak màngo yàgg naa bëri mbuur gi ak foofu. te fur yooyu bu baree ci dëkk. dëkk bi day neex. Hmm. parce que kenn du xiif. Hmm. dañ lay nettali sëñ Abdoulaye Mbacke bi mu fiy nekk dër bi ba bi mu fiy jógee nga xam ne guyaab yi darkase yi orange yi limon yi lépp luy meññeef di am daar raxmaan booba gone daawul xiif moo tax lii ñuy def nii solution la Mm, c'est important voilà <coughs> mu ngi noonu ci wàllu njëmbatum garab ak ci aju mais beneen euh, polémique bi nga xam ne euh, ab lay Ndiaye dañ ko déplacé génne ko ci peut-être ñu bari ñu ngi naan dañ ko génne ci contexte bi mu nekk ba ko yóbbu ci diine te quand même war nañ koo mën a génnewaat ci diine ndax euh, diine lu sensible la lu doy waar la mooy di Ousmane ko wax ci wàllu muuraay Abbé André Ndiaye génn tontu ko jur polémique oustaz yeeg ñëpp di génn di ñi di faral Ousmane Sonko di defendre cause nañu muuru parce que ñàkk muuraay mu ngi xañ ay nit liggéey mu ngi xañ ay jigéen ñu war a jàng normal donc nooy jàngatee coow loolu du woon coow diine mais pratiquement nag léegi indi nañ ko ci diine te loolu nag c'est dangereux. xam nga loolu lu ci am mooy wax juñ wax te wax ja heure waxam jotagul. am ku ko répondre te am neneen nu mu ko woon a répondre gën noonu parce que bu fekkee coowul lu ñu wax ci wàllu éducation mu dem ba yegg ci affaire dem ba Sénégal tey da ngay gis ci réseau yi nit ñi di wax ci entre ñaari diine hmm. te Sénégal yàgg nekk ci réew moo xam dañu am maniature bu baax ci suñu diine àndandoo booloo nekk benn dem hmm. man de su ma doon Ousmane Sonko loolu bu fekkonte ne amoon na ay conseil balaa mu cee wax li mu jëkkee comme gis nañ ne Sénégal gi am na école yoo xam ne école yu juddit lañ te chrétien du jàngee ci école ba hmm. ñoom ñu am école yoo xam ne dañ ko def ci christianisme te jullit du fa jàngee kon war nañoo boole ñaar ñi bokk waxtaan ak ñoom. woo secteur de l'éducation ñaari secteur de l'éducation yooyu ak secteur de def dialogue national pour ça parce que bu ñu ne dañuy def dialogue pour la justice woo nañu def dialogue pour éducation bi ñu toll nii. parce que tey lu comp ñu mën a wax am na école yu fi nekk yoo xam ne chrétien du ci jàngee tey école yu jullit lañ am na ay ay ay écoles yu fi yoo xam ne école d'accord naa Ousmane nañ bàyyi nañuy porter voile. pour dugg ci école chrétien yi dem jàngee ji fa waaye war nañoo mën a permettre chrétien bi tamit takk croix am dugg ci école euh, suñu école coranique yi ñoom it dem jàngi jee fa bu dee jàng-jàng la rek parce que franco arabe am na seen école yi am na loolu nag boo ko bëggee def da ngay bokk dajale leen waxtaan ak ñoom da ngay bokk dajale lii Ousmane Sonko woon njëkkee mooy dialogue national ci lool parce que cas boobu amoon na fi mu doon problème nekk problème bu sérieux soo woowee abbé yi kilifa diine yi woo borom école yi jàngalee Euh, arabe woo borom école yi nga xam ne école christianisme lañ waxtaan ko ci table bañ génnoo mu génn en tant que état def déclaration boobaa dañ fekk problème bi saafara woon parce que abbé bi nu mu ko mën a interpréter Ousmane Sonko moo xëy rek wax ci penc bi donte bi mu ko waxee ci secteur éducation la mais nag damaa jàpp ne loolu sérieux na sérieux goo xam dañ ko wax parce yi mënu leen wax ne force seen école yi na ci ab jullit muuru dem jàngee ci te yoo xam ne chrétien du jàngee ci biir. mais en Euh, non xam nga dama ne lool loolu problème la am ci réew soo demee ne école chrétien yi fi nekk na ay doomi sénégalais yi jullit yi dem bañ yor seen muuraay dem jàng ji ci biir sénégalais yi am seen i école arabe di jàngale franco arabe doomu euh, parce que lu tax nga dem jël ñu ne nga mën a jël sa doom yow ab jullit di ko yóbbu ci école chrétien parce que da nga mu baax moo fa tey gis nañ ñi nga xam dañ leen ay doomi daara lañ boo paree boo ci franco jàngalee ko ni nga bëggee sa li tax nga taamu sa doom doon jullit yóbbu ko ci école jullit yi mu jàngee foofu yi nga xam ne franco arabe la nga sàkku sa doom yóbbu ko ci école christianisme yi ci bu jàngee foofu am na loo fay ñoom li ñuy sàkku fii nañ dem sa réewum Sénégal dafa nekk réew moo xam ne réewum laïcité la jullit yi dañ man dama daan dem bi ma nekkee xale ci sama koñ bi ma dëkk ñi ma nekkal ba léegi fi ñu toll nii damay dañ am événement rey xar pour ñun jullit yi rey mbaam xuux pour ñoom ñu bokk feetoo ci seen feet ba mu neex pourtant ñun jullit yi bu ñu ñëwee ci ñun ñoom ñun xar rek la rey li ñuy togg rek la ñuy ñun ak ñoom ñu bokk lekk ñoom duñu leen génnal seen part te bu ñu leen fayoon seen bor dañu ñu lekk ko ñun ñu rek suñu xaw fay leen seen bor ñoo ñu gën a sérieux fuuf baari na ci Sénégal gi fuuf koo fi gis mu mànd ba tëdd ci mbedd mi kurusa nga ca loxo ba 95 pour cent ji naan sàngara ñu dañuy ay chrétiens ay julli lañ ci yonent di dogal Sénégal réewum la ñi ne ci internet bi nii di bëgg rey nit ñi kenn nañ leen respecté bañee indi problème loolu ci suñu biir Ousmane Sonko mën naa woo kii recevoir ko ñu toog waxtaanat ba jekk ñu woote dialogue national ci lool waxtaane ko ba mu jekkate problème du ci am parce que kii même bu fekkee abbé la dama koy damay mel ne ku bokkoon ci ñi sant Mbàkke génn wax joo xam ne da ko wax parce que abbé dafa am cër bu mu am ci christianisme ni ab mu xaddam amee cër ci yoon Alaaji Malik ab do am am ab sëriñ amee ko xam nañ leen respecté seen kii quel que soit alpha même bu fekkee li mu wax am na erreur bu ne ci communication bi nañ jàpp na abbé la ndax tey jii bépp sëriñ boo xam ne waxoon nga infraction da ngay gis ay taalibe génn ji Sénégal jàmm la mérité wu problème yii warul am parce que déplacé nañ ko yóbbu ko ci te man d'accord ma kenn politiser ko mais daal su ma sañoon <coughs> Ousmane Sonko woote ak Diomaye fay dialogue national pour éducation lii ñu régler ko une bonne jeex parce que bu leen duutee baaraam it duut baaraam suñ nañ fi ñuy école yu ay chrétien dul jàngee mais abbé aussi euh, de am na fu muy waxee ne euh, li nga xam ne mooy institution bi dafa mel ni dafa ni dafa xaw a dafa xaw a tuutal euh, pal gi maanaam daf ko xaw mais wax na dëgg nit ñi tuutee fal nit ñu tuutee falu. mais institution la tuutal. dama ne institution benn institution fi nekk mooy Diomaye Faye xam-xam bi mu am. ki muy waxal du dara. déedéet waay ki muy waxal di Sonko du dara. c'est un premier ministre. mais mais Ousmane Sonko jëfi démbam maanaam jëfi démbam ma ko tuutal. maanaam comportement am démbam moo tuuti comportement am démbam mooy Sénégal dañoo fal nit ku tuuti parce que comportement démbam moo tuuti. dem na élection présidentielle deux mille dem na élection législative jàll Pire Forest dem élection présidentielle deux mille dix jàll ca mais mooy homme politique bi bi ñu bi melee ci ay affaire euh, massage loolu ma manque de tuutee tax muy dem foofu. d'accord ça veut dire que moo tuutal boppam. booy booy communiquer da ngay expert en communication am expert en droit Diomaye Faye kay moo nekk président de la République ñoom ñaar ñoo toogoon ci table ji ndax Diomaye Faye li mu wax dañ ko préparé bind ko Ousmane Sonko dafa war a di ut ay expert en droit expert en communication fullaam ji mu am ak fayda yaakaar ne moom bu ñu ko dëkkee micro lu ko neex ma naa wax autorité day am ay expert en communication yuy saytu communication am ay expert en droit yu koy communication ñu xool li ma war a wax. mbaa su ma ko waxee du am ku mu piéñe kilifa du micro bu ñu la jox loolu la neex nga wax ci li ngay wax dañ ko war a bind hmm, ndax sujet bi jàpp naa ne waroon na cee mën a wax mais waroon naa jiital dialogue d'accord waxtaan ak ñëpp ba pare génn def ci déclaration boobu ministre de sax moom na cee wax moom mu bañ cee wax quoi mais vraiment lii indi ci ci réew mi ba sénégalais yi commencé di ci wax naan université amul église lu ne ñu commencé ko wax loolu woo ñëw fexe ba mu installé wu ci réew mi te lu ñu mën a dox gaaw ba mu stoppé woon nañ ko mën a def na woo nañu ko woo Euh, woo ñu waxtaan daal ba jàmm am quoi parce que fi mu commencé jëm baaxul. c'est important Saa Wolof comme li ma